salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen bëggee maa ngi leen di ziar di leen wax nag ngeen abonné sama seen youtube Momo Pro ngeen activé cloche bi te bañ a raté benn vidéo merci